Sénégal dans le mujjé nak finalement ñu jàkkaarloog ñom dans la rue parce que Ousmane Sonko amul droit ñu wah wax si wax yo xamni ni moom fi waxone ñu ci poursuivre nit ñi lolu man dama problème au Sénégal parce que bo xolé Ousmane Sonko tay posture bu mu jël moy posture président Ousmane Sonko yamul rek ci am ay ay déroga ay ay prérogatives Ousmane Sonko Fay dof def diplomatie parallèle Ousmane Sonko mi ngi dem fo xam di incarner la diplomatie sénégalaise te lolu c'est une chasse gardée du président de la République. président de la République moo mën dem au nom du Sénégal. mu concerne mu concerner Sénégal yëpp. tey li muy dem ci international bi di dem ci ay dëkk yo xamni manam maanaam yondi wu ko fa mom moo fa demal pom pour agenda personnel décision bu mu fa mënti jël ça n'engage pas le Sénégal au niveau institutionnel. parce que le Sénégal dafa fal ben nit jox kay pour gis nga temps Diomaye fay bu mu gérer dëkk bi na na def na def na na démissionné ñu organiser élection à anticiper man loolu la gëm parce que si la falé da ngay jël ses responsabilité Ousmane Sonko sa patron la won bir pastif. on est d'accord mais tay dañ la fal l'institution présidentielle da ko incarner de façon totale amoo droit du partager ak nit d'accord voilà juste pour avancer ci loolu ngeen wax ni régie vidéo bi su paré ngeen yonne ngeen jox mako comme on dit que c'est le passé qui définit le présent hmm. amna ay mbir yu fi xewoon jëmele ko ci lu melni li nga xamanteni ba jaxate mom la wax. jangat bu yaatu la bu yaatu la euh ndax man li Cheikh Bamba djey wax ci bopam tet du don l'objet du débat mais li ci gis moy d'abord lan mo andi wax yu mel nonu mëna am parce que Sénégal malheureusement dañuy baye jandro mu ñu top ci watat do je crois qu'il faut. analyser en profondeur ces questions-là. gannaaw les réactions ci dossier bu melni déclaration ñuy def ba réclamer des sanctions du won sentir? parce qu'en matière d'injure publique c'est personnel Cheikh Bamba Dièye la justice bi dafa citer ay nit mhm. loolu nak en droit Si mhm. nous dañu citer nommément ay nit ñom rek mais j'ai été insulté et diffamé. je mais nous yooyu bu ñu dee ay kilifa ci Non, kuréel. bu ñu Ça saagawee nañ cest à le directeur général des impôts de domaines est corrompu. administration fiscale nous mënul jóg ne ñu on est d'accord. léegi. mais laal nga leen ci benn fànn bañ na ba loi li deuxième man gëm ils ont dû subir des pressions. et ils ont voulu montrer qu'ils sont là aussi pour défendre leurs collègues mais mënoon nañu yem ci condamnation de principe deuxième bi mooy l'attitude du procureur de la République voilà un procureur boo xam ne kenn xamul ban façon procureur la balaa may dee mu jóg taxaw dinaan day fas kanam ne day menacer nit ñi kan la fi mën menacer moom ab simple fonctionnaire la qui rend la justice au nom du peuple sénégalais munoo nag ne da ngay rendre la justice au nom de quelqu'un te kooku amul sañ-sañ ne ni nga koy defee neexuma loolu il se trompe dina ko dégg ilaa yow mi diin ñaareel bi mais matière à autosaisine yi bëri na fi waaye waaye waxuma autosaisine. Mhm. saisine yi dossiers yi nekk sur sa table kenn xamul nu mu toll. mu ne ko fi ñukk dinaa la limal léegi quelques dossiers. Mhm. Mhm. mais li ma la bëgg wax mooy en matière de de d' injure publique le procureur ne peut pas s' autosaisir ñi ñu tudd. ñoom rek a mën a déposer une plainte. bañ na ba suñu retirer seen plainte l' action est éteinte y compris l' action publique donc procureur autosaisir à quel titre aujourd'hui les saisir autosaisir même procureur de la république am am a lu ko waroon qui gën doy ci autosaisine mhm. wala ci traitement de dossier L'année ñuy wax ni dossier bu concerne opposant ñu mel ay euh, ñu ñu ñu gis je voudrais faire une proposition une, une précision les propos que j'avance sont les propos de Ousmane Sonko, président du parti Pastif Les Patriotes. Ousmane Sonko, président du parti Pastif, m'a invité au Sénégal à franc-maçon L'autre c'est de fait Mon leen ko invité Jean-Luc Mélenchon au Sénégal à franc-maçon M'a invité Sénégal qui défendre Goudigine Sénégal Mon leen ko qui défend défendre Goudigin, du défendre islamiste bohème xam dañ ko du viol diko défendre Ousmane Sonko nommé cinquième vice président ko xamni ay kayitam a ngi fi c'est-à-dire moo kon yaakaar naa ni Djibi euh, Samba ñoo do vidéo bi comme je dis c'est le passé qui définit le présent tay ki tax procureur auto-saisir jël li nga xamanteni manam moy mooy pen ko ci kaw Bah Diakhaté offense au père. la wax PM boobu mon école démb ci opposition bi mom mo xamal ni que injure publique procureur amul pour autosaisir ci ki ñu saga kese mo am sañ-sañu dem porter ji plainte te su retirer plainte am wax bi jeex na ne procureur su bañee ñu wax ko jarul muy fuñ fuñ lu di mermerlu dañ koy wax ba ila yow medina ku fi ne woon démb wax koku tay mo nek premier ministre procureur koku la ne dañ ko offensé te ki mu ne moko offensé muy ba jaxaté dafa ne diw président parti Pastef mom ci bopam ba muy wax dafa ne mingi wax ci coobare parti Pastefam kon ana premier ministre bi ñu offensé fi question boobu lay laaj. xam nga xam nga moo Tange gis nga gis nga Ousmane Sonko li muy def nii bis bu sénégalais ñàkkee fayda ba continuer que il va exercer une dictature dans ce pays ma loolu laa gëm. Ah. parce que xam nga lu tax. Hmm. gis nga propos yii nii mu teg. Ah. lii toute la presse dañ ko ko waroon rappeler parce que tay dañu nek dans le même cas de figure man Ousmane Sonko déglu naka ben audio légui ni vidéo bala la tamay dugg ben vidéo bu mu ne carrément ñëpp diko dégg Amadou Ba sàcc nga Amadou Ba était premier ministre. ah mais campagne mais mais non mais non mais. non, mën campagne non xaar rek ça dit que ça dit dire que ah. Ba ça dit dire que kii euh, Tange. fii gisuma ben autorité étatique fi bu fi nekkoon aux affaires nga am immunité wala nga ñàkk am wala nga am ay prérogatives yo xamni ne wala nga ñàkk am Ousmane Sonko taxul wax li xam nga li wax ni ci procureur tay procureur bobu non tay peut-être que c'est le procureur sortant bah non non non c'était c'était c'était l'autre là qui qui est aujourd'hui à à à truc à à l'OFNAC moy moy moy Bassirou Gueye c'est Bassirou Gueye la nekkoon mais Bassirou Gueye bobu tay Li ko Ousmane Sonko waxal ni en terme d'offense mais li normalement dans un pays organisé Ousmane Sonko lii nii waroon na nekk loo xam ne waroon na sax mu exprimer ko publiquement parce que lépp loo xam ne waxoon na ko tey tey les mêmes choses lañ ko delloo tey Ousmane Sonko moo taxaw ne carrément man quand je prends la parole je ne prends pas la parole en qualité de premier ministre je prends la parole en tant que président de PASTEF du parti PASTEF les patriotes Bah Diakhaté ñëw jaaraat ci même phrase bi mu wax ne Ousmane Sonko lay waxal en tant que président Pastef Wa légui Ousmane Sonko buñ ko mëne may mu distinguer entre mom, ak premier ministre waruñu may ba jaxaté mu distinguer entre Ousmane Sonko ak premier ministre mais Ousmane Sonko mo ñëk distinguer Ousmane Sonko mo ñëk def séparation entre titre officiel bu mu yoré ak titre bu mu yoré dans le cadre du parti bu Ousmane Sonko déchargé woo xam na wax parce que doful dina le ko Ousmane Sonko xam na ni la wax ak lamu togg bok Mélenchon avant mu ñëw Sénégal ak li ñu parti bi mu war défendre par rapport à l'homosexualité tout loolu daañu ci ñëw Ousmane Sonko xam na du neex sénégalais yi. d'accord Ousmane Sonko xam na mënu ci engager l'état du Sénégal. motax très tôt il a fait le départ il a fait la la la la la la la différence entre mom mi wax en tant que président Pastef ak le premier ministre bi nga xamni mom moy poste officiel am. li mo indi ñu mara a may ba jaxalte jàmm ak Salam parce que Ousmane Sonko bu amé droit taxaw wax à titre personnel jël position personnelle nit ñi war nañ ko mën ton ci position personnelle bu mu jël. d'accord loolu man loolu laa gisee.